njëkk yëpp damay sant sëñ Saliou Thioune ndigal di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wër naal bi mu naal te sëñ Béthio bàyyi ko fi yàlla bu ko dara yàqal te am nañ ci yaakaar de ndax ku nekk ci ndigalu sëñ Touba dara du la yàqal te moom da daa nekk ci ndigal nee naa ko Thioune mënoon nga nekk suñu sëriñ sëf nu saret du ñu yeew du ñu dóor bëgg loo bëgg ñu def ko te duñ sañu ñu bañ ndax suñu sa bàyyi kër duggul suñu kër dañu force da ngay nekk suñu taalibe ñun ñoo xool ci làmb yàlla gi gis lu mu bëgg bëgg gu ñu bëgg sëñ Saaliw ñun gisuñu lu gën sëñ Bello ci bëgg sëñ Saaliw moo tax ñu ñëw jokk ci moom mu def ñu ay murit ndax man je suis pas né murit yi mbokk ngi fii bëri ci mbooloo mi man tukulóor laa ci ndey ci bàyyi juróom-ñaari maam sama bàjjan moo doon sëy kër Thierno Mansour Baro wudduru El Hadj Ndiaye sama nijaay la su ma ko waxee fii ñëpp xam nañ ko mënoon naa am cër feneen mais nag sëñ Tuubaa ma tànnal bopp tànnal ma boppam sëñ Béthio këf sama bopp def ci man bëggeelu sëñ Saliou ma nekk université jàng boo yori kayit waaye dara ñoruma lu dul taalibe te moo ko def ci man ndax mooy sama royukaay mooy sama modèle damay ne nag bés bii dafa jaral leeral le 17 avril 1946 muy daje sëñ Béthio ak sëriñ Saliou nga xam ne fa la cantaakoon juddoo képp tey kuy ne axlu cantaakoon nga bés boobu tax nga juddu dama ne yoonu mu ñaari bés yi war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax ñaar fukki fan weeru koor muy daja maam Cheikh Rafal ki tax ñëpp jëriñu ak sëñ Bamba ak le 17 avril 1946 ku indi loo xam ne nii kenn mosu ko xalaat jaamu yàlla googu dina ñëw ci kaw suuf muy cant yàlla wax ci alxuraan wa az la an zakartukum wa azdandakum képp ku sant ma dollil sëñ Saalu ñëw canu cant gi jox ko sañ Béthio nañu dee leen sant di bernde dee leen bernde di rendi muy neex te doo leen koy joxe te bu leen xam xàjj ak seen sëñ bi bu nga ko waxee cant gi ne ko de ah Thioune man de damaa amoon yéene 17 avril ma togg ay bernde yóbbu ko dalal jàmm si sa tur bëgguma ci dara ngir ndax nga am ndam rek ndax dañu fa nekk xam naa ne yelloo nañ ko te dañoo nekk ci bërëb ndax ñetti bërëb yi dañoo war a bàyyi xel la prison l'hôpital ak euh, cimetière ndax ku fa nekk rek am na lu la fa téye te xëy na loolu am na looy bëgg te doo ko mën a def <laughs> lii daf ñu war tous les jours mais xëy na mënuñu amuñu doole ak kàttan def ko tous les jours waaye moment yi dafa nekk ay moment exceptionnel ndax ñun lu ñu jëriñ ci yoonu murid rek sëñ Béthio ndax moo ñu dimbali moo ñu won nu ñuy bëggee suñu sëriñ moo ñu won nuy jëfalee suñu sëriñ moo ñu won luy màggal mag wax na ma man xëy na juddooma ci yoonu mais mag wax na ma avant balaa sëñ Béthio sëñ Saliou di ñëw fii màggal ay cere sax dañ ko doon togg léegi ku la togg cere màggal kenn du ko lekk kon am na niveau bi fu mu yegg ci màggal sëñ Béthio yeggal na ko fa loolu nag muy cant di berne di rendi te buntu buntu yàlla yi nag dañoo bari sama xam-xam yàllaa ko wax waaye gu gën a gaaw a yeggale doomu aadama mooy cant ndax euh, mënoon nañu def ay jullaakoon dañ koy def it di julli mënoon nañ doon ay woraakoon dañoo woor mënoon nañ def ay asaakoon dañuy asaka mënoon nañu doon ñuy aji màkka dañuy aji waaye nag mu def ñu cantaakoon loolu loolu bonus la plus la mooy ginnaaw bi ñu matalee farata yële nga xam ne Seydina sallallahu alayhi wa sallam moo ko fi indi dafa jël en plus jox ko sëñ Béthio muy cant gi kon nag ñu ngi santaat bu baax du kàddu xam-xam kàddu yéene la di sant Serigne Saliou Thioune ci taxawaay bi ci yëg gi ak nu mu dox ak ñun daara géej waaye yëpp la mobiliser def ko sama ginnaaw ne ma jëwriñ sa waañ bi de laay bàyyi Dakar soo ñëwee hôpital dalal jàmm mel ni ñëw nga ci hôpitaux yépp soo demee ci daara alxuraan yi nga xam ne tamit dañ fa yóbbu ay bernde dafa mel ni yóbbu nga ci daara yépp Dakar soo demee naa la booleek média yi ndax man bëgguma di fës ci média ndax jëfu jëfu suuf laa xam jëfu jëfu suuf laa xam moo tax nag bu ma joxee ndigal ne ma média yi nañu ñëw ma ne ko cuunde yow loo bëgg loolu la ñuy def loo digal loolu lañ koy defee soo ñu waxoon tey jii lu ñu togg lu ba pare dañ ko def ci ay camion yóbbu ko Madinatu Salaam dañ koy def camion yóbbu ko Madinatu Salaam loolu rek laa amoon lu may wax di tuub di jéggalu nag di sant sama mbokk bopp yi sama mbokk taalibe yi seen pay sëñ Tuubaa mi am fay ñu koy sant directeur hôpital bi tamit Moussa Daf nga xam ne ñu ngi jokkoo depuis presque trois semaines benn sànq rek woo naa ko téléphone muy sama mbokk bopp ñoo bokk cosaan Fuuta il de Kanel moi je suis de Wuduru yàlla def muy alpulaar may alpulaar ndax damaa ñëw fii benn jour accueil ma gis tumuranke bu accueil bi tumuranke ci wàllu seet kayit seet ay kii mu mu def ma metti tal man de am naa yéene am naa ay rakk yoo xam ne informaticien lañ dañoo jàng informatique ba yëy kayit naa waxtaan ak ñoom ñu ñëw samp fi benn accueil informatisé te loolu maa ngi koy wax ci média bi ñun social bu ñu xaal gouvernement ñëw defal ñun ñi nga xam ne tey ji yàlla dimbali nañu ñuy yëngu am xam-xam am dara loo xam ne mën nañ ko dimbali lu xam ne wër nañu ndax dam koy leeral de mënoon naa dem hôpital Pikine am naa fay wëllëre yu bari mënoon naa dem benn hôpital mais ndox lu jéggi pax fii laa dëkk man cité bu ma dëkk dalal jàmbu lañ ko tuddee rond-point bii ñu tuddee ko Cheikh Béthio hôpital bi ñëw nekk fii kon man man daal maay sant man rek maa war a sant bu ma sëñ bi joxee ndigal ma def lii may ñaan nag yokkute ba faw waaw ah, jëf bi yàlla bu mu dakk lii dañoo bëgg di ko def saa su ne hôpital bi de yéen def nañ leen partenaire di ngeen xam ne sëñ Sall ndigal la neex a jëflanteel hôpital bi dañ koy def suñu hôpital muy hôpitalu sëñ Béthio dañ fi jo dañu nañu dimbali hôpital ba nga xam ne ku fi ñëw man dama dem Thaïlande may faju ñu opéré ma foofu mais niveau d'accueil bu ñu ma def amul différence ak hôtel dafa mel ni réception loolu nag la ñuy bëgg fii nga xam ne nit ku fi ñëwee dalal xel bu ñuy dalal sa xel yow dina tax yow ba dangay ngay fàtte sa jàngoro da ngay loolu rek la ñuy ñaan loolu nag wax ji bëri na waaye nag warul woon ñàkk ñu seetal jëf am mbégte lool di leen recevoir fii léegi nag li ci xaw a metti rek mooy directeur bi ñëw ba tollu fenn si yoon mais dafa am dog-dog bu tax ba mu wàññeeku mu wooñu nee ñu ñii yegg seeguñu ma ni mu ni waaye na ngeen ma expliquer ngeen jéggulu ci sama tur wax leen ni bëggoon nañu bëggoon naa ñëw man maa leen di gàttandul sama bopp waaye nag à l'impossible nul n'est tenu léegi mais comme yaa ngi fa ak représentant du personnel waaw bu ñu ñëwee rek ngeen gàttandu leel te nee leen dafa mel ni rek man maa taxaw yoon yemul si benn bu beneen yoon ni incha allah xëy na loolu dina mën ma matale waaw man lu ma am nag lu may wax di leen gërëm bu baax ndax lii ngeen def dafa rëy dafa foor si ñun parce que ñun dañu yor ay malaat te lu gën rek la ñu bëgg si malade yi malade ku dimbalee la soxla malaat ku ko taxawu la soxla léegi suñu toogee gis ñu ñëw tàllal ñu loxo ñun du ñu am lu ñu def lu dul nangu loxo yooyu ak fukki loxo lañ koy nangoo sax te li ngeen def dafa sori si ñun togop ñu leen di ñaanal nag lii ngeen def def seen doole def seen poche yéene bi ngeen am ku si nekk si yéen yéen a xam li leen yëkkati vraiment yàlla na leen yàlla fay fay leen lu sut seen njott li ngeen bëgg ci bis bi ba tax ngeen taamu hôpital bi taamu ay malade ndax malade dafa soxla ko ko taxawu ngeen ñëw def lu rafet lii yàlla rek moo leen mën a fay bàyyi nañ leen ak yàlla yàlla leen yàlla fay vraiment ngeen dellu ak jàmm seen njaboot te xam ne ñun moom lu ñu mën a wax kontaan dafa tuuti man damaa déggul olof waaye bu ma xamoon loo ëpp lool loolu laay wax maa ngi gërëm ñëpp <laughs> sant di bëgg lool ci jotaay bi xëy na dañoo xaw a bett nag ndax comme ni ñu ko waxee soxna Maram Diène mm-hmm. la plupart ñi daan ñëw fii di indi ay xéewal daawul demee nii mhm. daan doon rek ñu wax dañ fi indi xel bu ko defee comme moom moo jiite économie moom lañ daan yebal mu recevoir leen mhm. ñu yóbbu ko ci waañu comme nañ ko baaxoo defee waaye bu ñu xamoon ni sang yu tedd nii ñooy ñëw yaakaar naa waxuma hôpital bi wante ñëpp ñooy ñëw teew waaw donte directeur mi ngi woon ci yoon am mhm. empêchement donc dañuy jël cadre ñun ci turu personnel hôpital bi yëpp ndax yàlla dogal na ñuy représentant personnel bi donc mën nañu sant ci turu mbooleem ku nekk ci hôpital bi di ñaan jëf ji nga xamante ni moom ngeen jëf te yàlla rek tax ak yëmi sëriñ bi yàlla nangu ko gannaaw ba mu ko nangoo ma yàlla ful ko barkeel ko te delloo yool bi ci ci mbooleem jullit ñëpp barke Seexul Xadim mbubb bi ma sol Cheikh Béthio moo ma ko jox yoway billaahi lazi la ñaari ñaar la woon bii mooy bii ak am na keneen ku ñëw fi maam Cheikh bu bu mu soloon comme boobu la joxe El Hadj man bii la ma jox kon ma ne bii damay dem fu riche ci man rek ma sol ko rek sant sante ko yàlla uh-huh. Abdallah uh-huh. yàlla na la yàlla jàppale yàlla na la yàlla jàppale liggéey bi nga wax fii surtout xale yi sa sarak yi uh-huh. informaticiens yi yoo xam ne dañuy jàng ba am doctorat ci informatique dañu ñëw defar fii lu amul fenn loolu jàpp si maa ngi sa gannaaw ñun ñëpp ñu ngi seen gannaaw yi yàlla na sax ñi fi nekk yàlla na yàlla yàlla leen may leen jàmm comme li nga ñaan si docteur yi tamit lu ñu laaj rek yàlla na nekk baynal kaafi woon noonu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa kon bu yàllay dogal ñu dem ba mel na ni gisatuñu ko si sayir bisam ñëw muy daja boobee ñuy sant Serigne Saliou ah wax dëgg yàlla bu ñu fi defee retour di ñëw ñu def fii hôpital dalal jàmm ndax sëñ bee jokkat moo ne woon sa jooja jamono sàllaaw day fii lu ne sunu borom dina ko fi indi Ablaye Wade def fi hôpital bi xéewal gi baawaan mbir mi yaatu kon nag sëñ Béthio wax dëgg yàlla dañu koy sant te di ko gërëm tey sant Serigne Saliou Ndigal mii taawam di ko ñaanal mu yàgg fi te sëñ Sall am nag dal sëñ Sall baax na sëñ Sall tabe na sëñ Sall ndigal baatum ndigal nag la ko may mooy nangu gi mu nangu ndigal keroog ba sëñ Béthio wàcce sëñ Muntaxa ne ko indil ma ko Tuubaa la ko sëñ Saal jël yóbbu Touba te booba ba mu koy jël di yóbbu Touba booba yóbbu woon ko Touba nag jafe na waaye si ndigal aku fit Serigne Touba dimbali ko mu yóbbu ko Touba kon bu yàlla dogalee Ablaye Boli taxawee nii mu taxawee si wetu sëñ Saal ma ne jëmm ji Serigne coo ko defar dama ne jëmm ji ba muy woote Tamba cant ga ñu daan jóge Touba di ñëw Tamba Abdoulaye Bouly mii la loolee nag la salaat tey dem si Serigne Saliou ndigal sëñ Sall ndigal jox ko ndigal ne ko ndigal li mooy def ko te jël ñam yi yóbbu ko hôpital dalal jàmm kon sëñ Sall kat ma sa la ko baayam sawoon kon jëmm jooji tax na ñun cuun waxuma cuun de waaye cantaakun fu nu toog fu nu taxaw du nu rus dinañu siggi xool nit ñi bu baax te fu nu dem ñu am ndam ki nu ko may nag ginnaaw yàlla mooy Serigne Saliou ndigal ndax ba ko sëñ Mountakha joxee ndigal ne ko indil ma sëñ Béthio bu ko jëfewul woon bu boobaa fu nu lu sant cuun wala cattaakun dañ naan cam kon li ñu may ndam li tey mooy Serigne Saliou ndigal li ko may ndigal li nag da ko jaayante Ablaye Boli defati nga ndam def nga xéewal waaye yow day faawu Serigne Touba melal la nii ndax yàlla daa dogal fa nga cosaanoo nga ñëw jël sa lépp jox Serigne Touba wéetal ko bëgg ko ba ku la gis xam ne ab murit nga ab murit bu dee dox dinañ xam ni kii murit la barke Serigne tubaa nga jëfe ko sa jëfin wu rafet wii indi xéewal yi nii nga ko indee malade yi tëdd si lali hôpital yi man de maa gëm ni giñ naa si Serigne Saliou man de Serigne Saliou ma yar fukki at ak juróom-ñett def si man ngërëmul Serigne Touba mu daan tëdd ma koy bés mu daan attaaya di ma jox may naan daan jëfandiku benn ndab mu jëfandiku jox ma ma jëfandiku dama koo jaayante si kanamu Serigne Saliou si keppara kon fii si dalal jàmm waxuma la dalal jàmm képp waaye hôpital yépp barke Serigne Saliou Mbacké képp ku fi di médecin malaat boo téyeti giñ naa si Serigne Touba ne sa saase dana wér maa ngi koy dogu si barkeb Serigne Saliou maa ngi ñaan si barkeb Serigne Saliou bisu sëñ Béthio bii di set avril te wax-wax gii may wax ma yëg ko dund ko mu nekk si man maa ngi ñaan si barkeb Serigne Touba ku ngeen téyeeti mu wér yal na ngeen mucc yal na ngeen yàgg yal na ngeen yokk yal na ñu ibbiku yal nañ ko teewe ay déwén te bu déwénee ñu rangale nag yi nii xéewal yi baawaan si barkeb Serigne Saliou